l'ensemble des meuniers a mené une action kuréelu meññee yi ñoom dañu déggoo ci suba si ngir dakkal bépp njaayum farine ci biir réew mi ndax nag d'accorduñu ak nguur gi donte sax ñu ngi rafetlu jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ak ngir wàññi farine bi ci lu toll ci quinze mille deux cent francs waaye nag ñun nag ay industriel lañ te nag nguur gi joxuñu benn garantie que mu doon lu ñu bind wala sax ci lu ñu wax ci li ñeel mille francs yi nga xam ne ndar nañ ko wàññi ci saagu farine bu ne ñuy laajte quatre mille francs yooyee kan ñuy leeral itam ne stock yi nga xam ne xas nañ ko ba jënd fay suñu ay taxe de douane yooyee naka lañ leen di def nit ñi war nañu xam ne nguur gi li mu calculer ci njëgu blé bi mu ngi toll ci 292 euros waaye nag blé bi fi mu toll nii mu ngi jar lu ëpp 300 euros. Le gouvernement a fait un calcul avec un cours de blé à euros.